tey ñi ngi fa xam te ne mooy stade Amadou Barry ci lu soxal open press Balla Gaye numéro 2 taxaw ak ki nga xam te mooy le grand bourguel bu Dakar Acti nga xam te kenn doon ko présenté ci lamb te dañuy sawar trop di amee analyse ci bis yi nga xamante ne bis yu toll nii donc grand bourguel ñu bàyyi la nga nuyoo ak internet yi daal di xanaa di nuyu waa Guédiawaye info yëpp et puis wax ne ki initiative bu rafet la ndax ville bu toll nous som à trois jours di combat tey moom mënoon nga ma wax tey ban jàngat nga def ci combat boobu. bés bu triste la d'abord bés bu diis la bu diis ci ñaari mbër yëpp Balla Gaye dafa fu mu jugee dajeeg Eumeu Sène mu daan ko pour une deuxième daje ak le roi des arènes Bombardier mu daan ko yàlla dimbali ko. moom encadre bu baax encadrement bu baax ay supporters yu ko gëm liggéey ak moom ba xëy jox ko Gris Bordeaux ñu bëre bëre bu rëy Balla indi keroog ci bis ba forme boo xam ne la mu waxoon Gris Bordeaux rek la jëf dana koon dinañu cons combat bi gis nga keroog cons nañ ko ndax bëri nañu gàtt gàtt 45 minutes ba yàlla def Balla am victoire par décision moo Modou xarañ loo jóge ci ama seen daan ko dem ci bombardier def faux pas daanu yàlla dimbali ko mu dalaat ci Lac de Guiers indi doole keroog bés boobu indi forme ñëw xeex ak Lac moom ñu jox ko victoire par décision arbitraire donc boo dee comparé ñaari situation ay situation yi xaw méngoo la Modou daje ak Balla Gaye en 2010 victoire boobu des euh, défaite boobu des ci xol ba tey xale boo daan en 2010 ngeen ñëw ba 2019 mu ne la damaa bëgg bëreeg yow dañuy jàpp ne kon jekk na waaye Balla mii tey dafa lu mu dikk ay supporters mooy couronne bi tey génnoon géejawaay dugg Pikine tey dafa war a duggaat biir géejawaay dana fi duggaat am du ko am du fi duggaat loolu yëpp waruñu le treize leer waaye moo du option bi mu jël contre Balla Gaye il est décisif ndax pare option bu un peu la ndax daanoon na Eumeu Sène mënoon amaat foofu revanche ci Eumeu te conquérir woon la couronne via Eumeu Sène moo doon gën a yomb ndax su ko amoo daanee dañaan daan na ko su ko Modou daanee dégg le roi des arènes mais pour pourquoi ce défi risqué Modou fan la toog ak lu mu yaakaar. Hmm. waaw gannaaw buur comme ni nga waxee combat bu risqué la pour Modou parce que défaite boobu des na ci xolam ba léegi mais Balla Gaye numéro 2 ni ko du ma la ko may. ñaari yoon ni ma la daanee ni ma la mënee woon 2010 noonu laa la mënee ba tey danaa la daan daal di jëli li ma muy roi des arènes indil ko waa Géejawaay ñu gis aussi benn excès de confiance boo xam te ne dafa nekk ci ñaari mbër yi gis ko côté Modou gis ko également ci côté Balla Gaye numéro 2 te yow excès de confiance boobu nan nga ko gisee est-ce que leen yóbbu ci ex mun leen juumloo ci combat mel noonu parce que gis nañ mu daloon sàccee ci diggante amee doole day bañantu modlo da fay jógee dem Espagne ku ne xam ni Espagne climat ma climat senegal ben la dem entraîner fa ñew indi dole lay bañantu ndax xalé la mën na bëree ku daan isa pouy daan Paul Maurice daan Balla Diouf daan bay Diouf daan Boy kayré daan Souley Dop daan Baye ndion bëré xalé yoy yëpp bëré sa morom yëpp daan leen mbor damay wax ni moy phénomène phénomène millénaire la ci lamb boo xoolee gudd réyul mais phénomène la ci làmb yàlla moo ko may loolu muy xale boo xam ni comme ni ma koy faral tuddee neex faral dimas mooy du ñëw ci làmb yàq bés waaye Balla Gaye tey boo chronométré tey li mu daan lépp ci ay mbër amul kum ci mës a bëreel combat bi def deux minutes ki détrôné na Yaxya Jóob Yékini ki nga xam ne dégg na dix ans roi des arènes daan moroomam yëpp daan ñi ko teewoon ñëpp daan Bombardier ñetti yoon daan Balla Gaye trois fois bëre xale yëpp daan leen Balla ñëw na ko tey dama jël si Ibrahima ta taakusaan googu benn taakusaan la ko Balla Gaye détrôné Yaxa Diop déggatul roi des arènes Balla dugg ci ay moromam Issa Pouye daan ko mu fayu bëreeg Saloum Saloum daan ko bëreeg Khadim Diallo daan ko bëreeg ñoom Mbaye Diouf daan leen bëreeg Tafa Gueye daan ko bëreeg Baboy daan ko donc ñoom ñaar du excès de confiance mais da nga yëg sa bopp ndax xam nga ne que mat nga góor mën nga bëre bari nga ay supporter te am nga doole loolu rek la. waaw ci kaw loolu ñu gis aussi spécialiste yu bëri wax nañ ci côté xeex bi ak côté bëree bi ñi ni bëree bi Balla Gaye dee lay avantage yel ñi également xeex bi Modou Lo lay avantage yel te yow en tant que tey nga nekk chroniqueur bu mag lan nga mën a wax ci ñaari fànn yi. man sama xalaat bu gàtt sax bëri bi dana néew ndax ñoom ñaar ku ci nekk li ne ci yow la Balla Gaye mës gis ñu gëdd ko mu arrière Modou Lo ku mës ci làmb ji mu arrière kenn kon dañ am rënkum daje mennum cong lay doon man xeex bi laa gën a gis que bi ndax Balla il a l'habitude lu wax ci signature de contrat dina ko def Modou Lo lu wax ci signature de contrat dina ko def te ñoom ñaar am na lu dox seen diggante ndax Modou Lo saa bu ko Balla ne masal dara da ngay sentir ni il se sent un peu vexé te Balla saa yu ko ne nekkoo ci état yoratoo dara du ko neex donc runkum la ñuy def daje combat boo xam ne bu diiree ñaari minutes sax bari grand bour yaakaar naa ne kàddu yi leer na kon ñu bàyyi la nga tàggatoo ak suñu internet ak la ngay ban les message ngay lancé à l'endroit des supporters ci bis bu am solo bi nga moom jëm waaw bu bés bu waa rek ñu indi ñu indi fair play Modou Lo Balla Gaye en moo bon tension jàll na Balla Gaye Gris Bordeaux moo bon tension jàll na Modou Lo Lac de Guiers moo bon jàll na donc lamb yi foog ñu xam ne que charme bi mooy werante beeg xaxayaatan foobeek reebeek waaye lamb amul animosité lamb xamul violence parce que c'est un sport benn chez nous amul dóorante amul saagante amul xasante amul waxante dara lamb lamb la mooy fola ak ree ñoom ñaar ñëpp ñaari xale lañu ku yàlla may ndam nga xam ne tey tu n'as pas démérité ku yàlla xañeen nga xam ne tu n'as pas maanaam du sa du sa ñàkk du sa yaafuus ñoom ñaar ñëpp li waroon ci combat bi def nañ ko kon ne supporters yi teel a ñëw surtout waa parcelle ñoom nga xam ni ñoom la stade bi gën a jege nañu accueillir waa géej waaye xam ne ñoo seeni ot hôte nañ leen teeru xale leen yoon yi bu kenn xeex bu kenn xuloo bés ba dama wax ni bésu feet la ndax c'est le maanaam c'est le drapeau du président de la république de tous les donc bésu réew mi la nañu ñëw sañse ñëw toog fo waxtaan ree bu ñu daana ñëpp ñu contenté c'est le Sénégal ki gañ. Kara Bour ñu lay sant di la gërëm yaakaar naa ne kàddu am na solo.